jërë ngeen jëf mbokk yi ñu suivre saa su nekk sur la BP ak ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajafal euh, comme ni ngeen ko gisee nag tey dañu xëy daal di jot ci information yi euh, que ni dafa am ñetti mool yu demoon géej euh, daal di fay des daanaka sax ñaar ñi ay papa ak doom lañu looloo waral ñu daal di sol suñu dàll ñëw ba fii nii ci diwaanu Caaroy ci géej gi ñëw fekk ki nga xamante ni nag ci famille bi la wokk directement mu daal di ñuy expliquer naka la film bi demee naka lañ ko yëgee ak naka lañ ko dundee la mon frère. waaw affaire yi moom ñun ñoom ñoo ko yëgatoo doo affaire yi métti lool waaw mu nekk tamit loo xamante ni dañ koy métti lu mu métti torop si ñun waaw. billaahi parce que tey jii nii géej gi mooy loolu quoi parce que instant bii nii dëkk bi dëgër na dëgër goo xamante ni kenn mënta toog kenn mënta toog parce que ñun ñoo ngi nii ay jeunes lan ne si dëkk bi instant bi ñun dara lu def géej jaay nañ lépp jaay nañ lépp billaahi parce que ñu ñoo ngi nii na si dëkk bi nii amuñu dara luñ def dañuy wër di taxawaalu rek instant bii nii géej gi jaay leen lépp waaw affaire boobu nag doon loo xamante ni dafa métti te parce que côté yooyu noonu ku fa ku fa am problème rek pour nga sauver du doon lu yomb. laataa ñuy xuus ci débat boobu wax ñu lan nga bokk ak euh, ñi génn àdduna. ñi génn àdduna ñun ay mbokk lañ ki jur ki euh, booy boobu gaañu noonu sama bàjjal la si man waaw kooku bàjjal la si man. waaw léegi euh, affaire bi naka la demee. affaire bi gars yi dañoo demoon géej dañoo demoon géej xam naa seen machine moo am problème rek te instant yii nii fi ñu amee problème nii bëri na gaal yoo xamante ni tey du ñoom se ñoo fa problème bëri na gaal fi am problème waaw. dañoo sori woon ci géej wala euh, sori wu ñu wala dañoo nekkoon ci zone de danger wala. waaw zone bi nekkoon noonu zone de danger la foofu noonu buurul baaxul tamit te instant bi tamit ndox mi sedd na sedd boo xamante ni mënoo see def deux minutes. boo si tëbee mënoo say def deux waaw. ñoom ñaata fan lañ ci def. ñoom benn jour la si benn jour bi lañ gaañu. moom ak doomam ñoo bokkoon benn gaal. moo doomam ñoo bokkoon benn gaal mu doon paa bu jàmbaare sax paa bu am jom waaw billaahi. keneen ki ñetteel nag kan la. keneen ki leen ñetteel xaritu doomam bi la xaritu doomam bi gaañam la ñoo daan nekk chaque jour waaw. ñoom dañoo da ngeen a toog rek jékki-jékki leen gaal bi des na wala dafa am heure boo xamante ni da ngeen a toog gisoo leen euh, seen xel xaw a ñaaw. waaw dañoo toog heure boo xamante ni gisuñu leen ñu xam ne gars yi am nañ problème te jour bu koy wax sax ñun ñu ngi amoon sarax ñu ngi nekkoon si sarax si nii bu ñu waxee loolu affaire yi gën a critiqué tamit waaw mu doon lu métti si ñun tamit leen ñaanal yàlla xaare leen àjjana waaw waaw. nga ne da ngeen a amoon sarax ban bés la tombé loon ba ñu génn àdduna parce que tey lañ ci jot ñun. samedi samedi la ñu woon problème yaakaar na samedi xam naa ne affaire bi ajuma lay doon mais samedi lañ koy yëg ñun samedi. dañoo dem ajuma samedi ngeen xam ne ñii daal di nañuy dem seen yoon. waaw waaw ñun loolu lañ ci am. Euh, est-ce que mën nga ñëwaat euh, pa bi sa mbokk la nga wax ñu ban genre nit la woon yow mi nga xamante ne yéen a bokk deret. waaw pa bi moom ku baax la woon baax na torop te ñun tamit bu dul lool sax ñun suñu mbokk la mbokk su soog ñun amul benn problème. waaw loolu tamit dëgg bu baax. wàcc na yeneen njaboot. waaw am na ay doom yu fi bàyyi am na ay doomam yu ne Europe am na ñu ne fii tamit caaro yi waaw am na ay doomam yu ne fii am na doomam yu ne Europe. keneen ki nga xamante ni moom moo di doomam naka lan nga mën a témoigner si moom. doomam bala bu mag bi wala. Euh, doomam bi mu génnandool àdduna wu. kooku kooku moom man nag yàlla daal def li ma xam si moom bariwul mais xam naa ko nii nii rek mais kom li may wax ak moom nii nuyoo rek laa gën a seex ak moom quoi nuyoo loola ñu gis ni ñuy dem géej di ci des bari na année bi mënoo koo compter ñi nga xamante ne dañuy dem géej te duñu wàññeekuwaat euh, récemment rek xewoon na fële na la ci géeju Soumbédioune ba euh, cette fois ci nag ñu daal di koy déggaat ci diwaanu yi ñetti nit daal di demandoo seen yoon lan mooy problème mu pêcheurs yi ak lan la ñuy faral di jànkoonteel ci digg géej. ah géej moom kenn ñëpp xam nañ ni instant bi nii géej ñëpp xam nañ ni géej amul bànqaas te tey jii nii mën ngaa dem ba biir géej sa machine bu amee problème rek boo yoree benn machine tey mën ngaa am problème te géej dañ see taamu tamit nga war da booy fanaane da ngaa war a yor ñaari machine yu bees tax tey jii nii dëgg nag toog toog si kaw bii nii yoroo dara métti na dara mais tey bul tay la sa ba kenn quoi booy dem géej yoral sa ñaari machine yi wóor nga doog a dem ba biir géej parce que géej boo fa amee problème gi soogaal rek mooy loolu tey pour nga génn àdduna lu yomb lay doon lu yomb parce que am na jën yoo xam ne ni chaque année bu fi duggee comme nii day am tey jën yooyu heure bu fi ñëwee rek il faut ay nit am ñu dem chaque année lii dafay am chaque année. yan genre jën la noonu moom. li li ko li ko commencé si jay jay heure bu fi jaaree dina yóbbu ay nit ak ak mbara mbara ñaari jën ñaari façon jën yi ñu fi heure bu ñu fi jaaree am ñu fi manqué. loolu xam-xamu lébu la wala seen maam yee ka parce que dañoo gis ne chaque année heure fi duggee rek waaw mooy loolu heure bu fi duggee rek da ngay gis ni am na am na am na am na ñum gàllankoor chaque année parce que du benn instant bi nii man mi am na ñu ma daan àndal ñoo xamante ni ñoo daan ànd si dëkk si koñ bi fii nii si ci affaire mel ni lañ am génn àddina comme nii. nga ni ak mbara heure bu ñu dikkee ci géej gi rek am faaw am ñu génn àdduna me ni genre sacrifice la yeg yegg wala daal. loolu la xaw ma mais jën nag parce que naax boo gis tey jii nii du ànd moom kese naax boo gis day ànd ak ay jinne lu si bari loolu moo koy waral nag mais heure bu ñu fa duggee rek comme nii rek ñun moom xaw ma caaray loolu xaw ma defee lii xaw ma nu fa demee noonu mais heure bu fi duggee dañuy gis ni am ñu fi manqué voilà. Euh, loolu li nga wax ni c'est très c'est très intéressant peut-être que am na ñu koy dégg te xamuñu ko woon euh, mën nañu loolu xam-xamu ko xam géej dëggantaan Njaay moom mooy euh, moom mooy wax loolu nee na Mara ak Jay bu dikkee rek dafay laaj sacrifice dafay laaj deret mais teewul ne yéen da ngeen dugg biir wuti ko dem di ko jaayi te mu leer leen ne yéen li ngeen di wuti day laaj sacrifice doo sentir que ni yéen tey jii ba ngeen dee dugg ci géej yéen a ngi ci danger alors que arrivage mbara ak Jay moom moo ñëw dañuy am danger boobu noonu parce que tey jii nii da ngay ni tey yaa ngi wuti jën te gars yi tey mbaali ñu yor day bari te am na jën yoo xamante ni su am na bari gu muy bari su dalee si mbaali rek yow doo ko mën a indi te tey jii nii di nga bëgg nag di nga bëgg comme tey ñu dégg ni Pape jàpp na jën wu bari damay bëgg loolu man mool damay bëgg ñu ne diw dégg nañ ca jàpp na jën wu bari léegi gars yi lu ci bari nag loolu moo leen di lor dañ maytu loolu parce que tey jii doo ne si tefes rek daan dañ maa war a dégg chaque jour gis nga nit ku ne sa wërsëg ngay jël parce que tey jii nii doo suuf say mbaal rek jën nga gis jën yu bari na nii rek ne xaaral ma yeb yeb yeb ba loo xamante ni waroo gaa ah, kon da nga bëgg wax ni daal moo li des fois ñoom ñooy yóbbee seen bopp li leen di dal ci géej. loolu tamit am na benn instant ñenn ñi li leen di ñoom ñoo ko yóbbee seen bopp parce que tey da ngay gis jën yoo xamante ni da lay leer ni lii mënoo yóbbu lépp nga ne da nga yóbbu lépp pour bëgg ñu dégg la rek ne diw jàpp na jën ñu si bari loolu moo leen yóbbee li leen dal mais bu dee problème bi fi jaar ni lool moom xam naa ne problème yu jënd ñoo xam naa bu ñu amulee problème mu machine dañuy dañuy dugg si banque bi rek yooyu doon lay demee. ñu yàgg lañ ci géej yàgg nañoo dem géej euh, pa bi euh, parce que dañuy gis ay kilifa yu mag yu nekk fii ci ci taatu géej gi boo waxee dañ naan bañ nekkee xale bu góor bu ndaw lañ commencé dem ba tey bi yàgg na ci géej. waaw pa bi yàgg naa dem géej kay yàgg naa dem géej doomam yàgg naa dem géej te doomam tamit jàmbaar la woon maket maan la woon daana maket da daan dem géej tamit waaw. lan ngay wax euh, nit ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, ñoom ñooy euh, faral di dem ci ci des fois mu tombeek période boo xamante ni géej neexul parce que nee nga géej instant bi dafa sedd mënoo faa def deux minutes yu mat am na ñoo xamante ne dañuy dem fanaan wala ñu dem yendu ba ngoon jot. waaw am na ñoo xam dañuy fanaan parce que tey jii nii par arrivée à rek parce que ñii dañuy dem ñii di ñëw ñii dañuy dem ñii di ñëw. di wax sama gars ne tey jii comme jën yooyu jën yu mel noonu bu fi duggee rek nan xool ni ñuy liggéey quoi nañ xool ni ñuy liggéey parce que tey jii ku si ku si ne si teeru rek bëgg nga ñu déggal quoi bëgg nga ñu déggal ba si man bi su ma ñu may dégg fu ne naan diw jàpp na nangam jàpp na nangam mais tey ku ne na nga xool ni ngay parce que tey jii boo xoolu ni nga yebee rek mën ngaa yeb ëpp boo bon ngaa mën ngaa yeb sa géej gi dal nga yeb ba dem géej gi ngelaw nga dajee ngelaw am problème yu si mel noonu daal gars nañ invité quoi di ko waaye yéen comme que nee ngeen euh, genre jën yooyu bu yegsee dafay laaj deret est-ce que jotul tamit jën yooyu bu nekkatee ci géej gi ngeen cotiser ngeen reyal ko xar wala ngeen reyal ko nag en guise de sacrifice. waaw bu dee fii moom fii moom gars yi fii farataaluñu loolu mais bu dee ay côté Yoff yeneen géej ay Fass boo yooyu noonu ñoom dinañ farataal yooyu mais bu dee caaree fii yooyu farataaluñ ko te lool moo moo ëppee importance loolu yoon la yoon la ñu koy def chaque année mais gars yi fii bu dee ñoom fii nii ñoom loolu farataaluñ ko quoi waaw. ñenn ñi nee nañu euh, gaalu français yi euh, ñoom ñoo fees ci géej gi di jël jën yi moo tax léegi moole di dem fu gën a gën a sori ngir am lu ñu yóbbu. waaw parce que instant bi il pour nga am jën yi fii fii da nga daan taxaw fii rek am jën yu bëri fii si fii doo sori mais instant bi pour nga am jën il faut nga romb ay gore ay 6 kilomètres si biir géej wala 7 dem ba si biir géej te tey ji foofu noonu ñaanu ma ko yàlla boo fa amee problème bu ndaw rek boo yoree benn machine doo doo mën a ñëwaat fii bu boo ootewul jot gaay boo boo wootee jotoo moom da ngay am problème boo sa kaabal bu dalul foofu da ngay faay dem parce que kaay fi jot a jaar yam noonu lay demee gars yi dañuy am problème bu bala ñoo leen a dimbali ñu génn zone bi yëpp bala balaa kaa gars yi yëg bu baax nga génn zone bi yëpp am problème. est-ce taaloon ngeen seen gaal dem seeti leen ñoom ba ñu réeree àjjuma. waaw gars taaloon gaal dem seeti leen mais bañ demee gisuñu nit ñi mbaali lañ fa fekk ak gaali gaal gi tasaaroo yooyu noonu. ñenn ñi ñoo ngi naan benn koor doo ngeen gisagum. waaw man man nag benn koor laa gisagul quoi mais maa ngi dégg ñu naan gis nañ beneen bi mais awma si lu ma leer nag mais benn moom ñëw na bañ rok ban la bu paa bi waaw bu paa bi waaw bu paa moom moo ñëw moom doo ngeen gisagum pour le moment waaw man c'est li ma xam moom lañ gisagul quoi waaw mais booy bi moom gisagu xam maa ngi dégg ñu naan feeñ na nag mais gisaguma ko euh, bu paa bi fan la teere jee woon kooram man nag xaw ma fu mu teere woon damaa jekki saare gars ne teer na quoi dañ koy rob bërëb sàngam nii ma dem Euh, léegi yow mi nga xamante ne da ngay dem géej est-ce que mën nga ñoo waxtaanal ci lu bari euh, ci géej euh, pour ñi nga xamante ne ñoom la ñoom ñoom ñoom ñoo ñuy seetaan actuellement. waaw géej di leen wax sama gars yi rek ne ku si dem géej li nga yóbbu essence bu doy boo demee ba mu leer ren te da ngay fanaan yoroon sa ñaari machine yoo xam ne machine yi baax la tey bëgg a xaalis bu mu la jaral tey ni ngay teel a set ba kenn quoi di jaay nit jàmbaar nga wala dara fii ñëpp ay jàmbaar mais tey tamit boo dem géej yóbbul sa machine yi baax. ak sa essence bu ndoy bu la leeree ni fa nga jëm nii essence bi dina indi nga dem ñëwaat mais comme tey jii li ñuy indil ay gàllankoor yëpp tey mooy yaa ngi dégg si machine bi paan daan xaar ma forcé dem forcé si dem tey dem am problème yu si bari problème bi bari yooyu moo koy indi façon yooyu noonu di wax sama gars yi ñu maytu yooyu rek ñu maytu yooyu bu baax tamit façon jën yi fii dugg yi tamit ñu wàññi mbaali bu baax parce que jën yi am daa am doole am na nu muy dalee si mbaali rek da ñàkk say mbaal ba yow am na noo si yabee da ngay am poroblème waaw di wax loolu sama gaay bu baax. dëgg la mool ngeen dëgg la tàmm ngeen di gis euh, nit muy dem te du te du dellu si waat mais laka ngeen gi laka ngeen lan ngeen di yëkk ci seen xool euh, bu ngeen gisee nit mu tàggu leen dem géej ngeen toog di ko xaar te ñëwaatul. waaw ah, dañuy am lu ñu métti dañuy am lu ñu métti ñu xam ne kat ñun ñii essence yi am na lu ñu métti torop te mënuñoo bàyyi géej gi te essence yi fii boo bàyyee géej ah, ñun géej lañ xam boo bàyyee géej tey ji amoo leneen loo fi war a mën a liggéeyaat ñun géej lañ xam. ñu métti trop dina tiit tamit dinañu métti ñu tiit mais tamit duñ bàyyi tamit cest day tax ñu gën a yokk a jom gën a dem ñun tamit loolu tamit dinañu gën a yee ñu gën a xam tamit ni ñuy doxalee tamit waaw. dañuy faral naan fii nii xale bi gën a ndaw mën na laa génneel jën loolu est-ce que du risque tamit. waaw parce que booy dañuy mën a fee benn instant risque la mais benn instant du risque parce que tey man du ma ne manu mën naa fee rek di forcer di dem su ma mënul fee damay toog mais am na ñoo xam dañuy ñëw ne mën nañ fee te ñëw fee ñëw dem forcer lap dee yooyu noonu mais fii booy ndaw booy bari dañuy mën nañoo fee dañuy dem ba fii nappi man mi ba ma duggee géej man tey jii man toog mosuma toog si ban école arabe rek laa jàng dama juddu rek xam géej commencé dem géej mosuma toog si ban école waaw loolu du risque comme ay xale yu ndaw ñu leen di yónni ci géej étant donné que géej gi euh, des fois ci seen ay termes yu ngeen di wax géej gi euh, day xaw day xaw a metti xaw ma day xaw a xaw ma terme yooyu ngeen koy utiliser des fois daal bay bay lever seen drapeau yi di wan nit ñi ne tey euh, waruñu dem géej. waaw loolu nag amoon na caare nag mais yaakaar naa ne gars yi instant yi dañ kaa xaw a wàññi parce que tey jii dañ daan jàkka jàkka ji ne fii njóobeen dañ daan takk drapeau rouge yaakaar naa ak blanc ak vert. yaakaar naa bu bu dee day ngelaw blanc bi vert bi waaw yaakaar naa blanc bi lii rouge bi la ñuy takk parce que rouge mooy danger bi rouge bi la ñuy takk kenn du dem géej bu dee day dal ñu yeew bu lool bi blanc bi waaw gars yi fii noonu lañu daan def mais instant yi moom loolu moom gisuma ko moom instant bi nii waaw vert yaakaar naa rouge ak blanc parce que blanc bi mooy mooy jàmm am na ko waa ngelawul mais rouge bi mooy danger bi kenn warta dem géej waaw di wax sama gars tamit bu loolu bu dee am na fi buñ gisee rus bi nan toog quoi nan toog waaw bàyyi ba ngelaw li dal. tey jii euh, comme sànq li nga wax des fois nit dina jël gaalam euh, di daw ci géej gi lu toll 6 kilomètres ngir mën a am ay jën est-ce que tey jii bu la leeree ni boo dawee 3 kilomètres nga am as tuuti sax nga dellu gënul que ngay dem ba ay 10 kilomètres wala lu ko ëpp ngir wuti euh, jën yoo xamante ne tey jii leeru la ba xam di nga ko fekkee am déet. waaw mais instant bi nii boo sorewul si géej gi mënoo am jën instant bi waxuma la 6 kilomètres rek waaye fii boo dawul boo dawul ay 30 kilomètres 50 kilomètres doo jàpp jën parce que fii nii yëpp gars yi yàq nañ ko ba tey yàq nañ fii yëpp ba tey diri nañ fii yëpp fii mooy loolu essence billaahi. da ngeen di ah, ñuy def état jaay na géej de gars yi nee te essence fii diri fii ñun ñoo ay xale ndaw lan li ñuy liggéey chaque année da daan bari fii fii lañ daan jëm si ginnaaw fi laa tourné di ko jàpp mais essence mooy loolu gi gars yi ni daal kenn xamul lu si ne kenn xamul daa yàqu heure bi daaw ñu fekk fi sax ñu toog di wax dan dan daan xëy fajar dem liggéeyi waaw mais instant yi daal gisuñu lu liggéey quoi gisuñu dara luñ liggéey ban mooy heure bu tane pour dem géej heure bi nga xamante ni moo xaw a tane instant bi nii gars yi cinq heures la dem géej cinq heures quatre heures la dem géej instant bi nii si ngoon gi nii waaw gars yi si ngoon gi la ñuy dem géej nii instant yi ñu ngi préparé nii mais bu si kanamee tuuti boo toogee di nga gis gaal yi gaal yi yëpp dañuy dem géej waaw dimanche bi daal la ñuy toog dimanche bi dañ dem géej kon mbokk yi ñoo ko déggandoo loolu mooy li nga xamante ni moom moo xew fii nii ci diwaanu Thiaroye ñett ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi génnandoo àdduna kenn ki euh, di wayjur bu góor ci keneen ki keneen ki nag nekkoon xaritam intime ñoom ñett ñu ànd géej euh, dem euh, ñëwaatuñu ba jamono jii ñuy waxee ak yéen nañu paa bi dongo la ñu gisagum kooram mu daal di yegg si di jaale ay mbokkam bu baax a baax nag di leen mastawu ci li nga xamante ni moom moo xew tey ñaaxaan nguur gi mu daal di gëstu ñi nga xamante ni ñoom ñoo di pêcheurs yi ndax tey jii boo waroon a yem euh, fii nii ci buntu bi rek napp li ngay napp waññeeku mais loolu mënatu ko euh, dinga daw ay 6 kilomètres lu ko ëpp ngir am euh, li nga xamante ni moom ngay soxla li nga xamante ni tey jii moom yaakaar ngir dundal ci sa njaboot boobu ba tey nag ñoo ngi koy kaas mais ñi leen ci ger su bari jot na nag ñu daal di ci wax ndax keroog ba manifestation yi amee ci réew mu Sénégal ñu ci bari génn nañu wax ni manifestation yi du yoon ndaw yi c'est que cest à donc cette fois-ci nag nappkatu jën yi yi ñoom ñooy wax ndax lii la ñu xam comme liggéey euh, bu ñu juddoo li leen leen di jàngal ba ni ñu nekkee mag donc nañu leen ci euh, jàppale muy li gën ci ñoom di gën li euh, nekk li gën ci askan bi ndax benn nit bu ñàkk bakkanam rekk dafa metti waxantuma laa nag chaque année ngay dégg nii groupe bu nit dem nañ ci géej gi te ñëwaatuñu dañ la daal di bàyyi nga tàggatoo rek ñu tëj émission bi. waaw di wax sama gaay yi ne bàyyi xel si li ma leen wax rek waaw ñu bàyyi xel si loolu noonu ak ak wax noonu. ñun daal bañ juddoo ba léegi géej leen xam si géej leen màggee dañoo judd rek dem géej ku nu mën a jàppale daal si loolu daal nga jàppale ñu bu baax a baax a baax a baax boo ko moom dina la sant gërëm la waaw parce que instant yi ñoo ngi nii defuñu dara dañuy wër di taxawaalu rek ndaw yi dëkk bàyyi nii lu fi dox bariwul ay tuuti tuuti moo fi dox instant yi ñun ñëpp dañ daan xëy liggéey mais instant bi nii mooy loolu ñi ñiy taxawaalu ñoo ëpp ñuy liggéey billaahi ku ñu mën a jàppale daal nga jàppale ñu baax a baax a baax parce que boo bëlee gars damaa gis ne kenn faale ñu quoi billaahi nañu jàppale ñu am liggéey waaw ñu mën a liggéey essant yi géej gi yàqu na kenn xamul lu si ne essant yi mooy loolu ñëpp dañu toog dañuy toog nii di xoolante dem jaayante ji benn essant ngay dem jaayante ji dem wuti ay liggéey sew sax ñëw nii ak naa billaahi ñu mën a jàppale daal nga jàppale ñu bu baax waaw lool laa am si may wax noonu la demee kon ñoo ko déggandoo jaajëfal leen yéen ñu ñu doon seetaan jox leen dig ba beneen yoon incha allah